monsieur Mbengue dégg nañ ne suba da ngeen fas yéene def arrêt de travail noonu lañ ko wooyee. léegi lan moo war a tey euh, ngeen fas yéene def loolu noonu. li tax ñu fas yéene def arrêt de travail suba ñun ñi nga xam ne ñooy entreprise ñi nga xam ni moom la yàlla def dogal ñun ñoo ak agréé habilité à livrer et transporter les conteneurs du Sénégal ñaar point la benn bu njëkk bi moy application règlement 14 yi y def ci conteneur yi pour def application règlement 14 bi dafa laaj tay qui ci bép plateforme ak terminal bo xamné lu mat 200 000 tonnes de marchandise fay génne nga équipé wu PSS ñun nak li nous concerné moy conteneur yi donc conteneur yi nak boko gissé l'essentiel, depuis essentiel DP gérer fi ci Sénégal du équipé waran équipé wu ci pèse essieu mu am ben pèse mobile pour gérer 800 conteneurs lolu mu indi xat-xat ci port bi bo xamni entre camion bi di jóge AGS AGS dafa nek ben parking bu port créé ci bitum buy obligé auto yi di jaar AGS d'abord avant ñuy dem Dupuy nga jóge AGS dugg ci port bi jaar depuis wët ñu pécé conteneur bi ba ngay génn dem na ci entre fukki waxtu ak juroom benn ba fukki waxtu ak juroom ñett loolu ab chauffeur yi dawal auto yi ñoo koy dund seeni besoin sax difficilement lan lan koy defee tey consommation bi nga xam ni moom lañ daan def ci euh, gasoil vingt litres pour def opération port ñi ngi ci quarante litres tay pratiquement li ñu daan mën taxaw livrer lu bon bon ñaari conteneur benn bi sax euh, pratiquement du sorties ndax auto yi dañuy fanaan qui ci lendemain la ñuy xëy di ko diko diko di ko donc koku moy benn point bi nga xamné tay taxna condition yooyu ñuy liggéeyee chaque jour bu ñu liggéeyee dañuy perte xaliss mënuñu continuer ci boobu liggéey ñing koy def nak depuis le 1er janvier le ministère tey ji transport daal di daal wax ni application bi ci lay tambalé ba légui dal bis boobu ba légui lu nu liggéey rek perte la. est-ce que yéen tey joytu ngeen bu loolu noonu ci autorité yi ak kan ngeen saisir. ñi ni koy joytu suñu tutelle d'abord port autonome de Dakar la yëg nañ ko wax nañ len ko.

di dem ci port bi di jëli conteneur bu fess pour livrer ko client bi da ngeen di sen passage euh, AGS bobu da ngeen fay 6600 par camion bu ngeen jëlé conteneur bi yobbu ko ci client bi ba mu jël marchandise bu ngeen koy delloo ci da ngeen fayat 6600 donc lolu à partir du 27 bi lay doon ci boy xol camion yi sen frais d'accès annuel 50 000 euros par camion. C'est une entreprise pour créer ce que est exigé, c'est am 000 auto minimum. Donc, am 10, 20, 30, 50. Durumi auto, si vous auto bilan fait 50 000 frais d'accès à petit port, à partir du 27, je suis atmi à 13 200 cumulés, day nekk 4 millions 800 nga doon fay 50 000 par an nous avons 4 millions 800 par auto. Quand l'entreprise a fait ne auto, oto la am presque 5 millions boo ko multiplier 25 millions la ngay fait port 000 par an ca tey jii des ñu demoon càmbar ci euh, bilan yi société yooyu déposé au niveau des impôts société yi def que conteneur transport amul kenn ku ci gagner malgré création employé lépp li def kenn du ci gagner 30 millions par an boobu ana liggéey looloo tax ñaari point yooyu pèse essieu bi ak frais yi moo tax ji ñun entreprise yi nga xamni lañu agréé pour transporter livraison conteneur yi ñu ni nag ah dañuy taxaw ba gis leneen lo xamni ni na ndax ba nu commencé ba légui perte rek def mën suñu xam ne seen kuréel bi ñaata association maanaam ñaata société la la la la tënk wala ñaata nit lay war mën a concerner. mais société yi nu yu nekk ci ci ñun kuréel yi mat na au moins cent sociétés cent entreprises lan la dul rek ay transporteurs yoo xam ne dañuy ay entreprises lañu yore di fay ay employés normalement am ay frais de structure. am ay garage ami mécanicien ami électricien am lépp kon li nu créé ci emploi bi nu libéraliser transport beeg légui ñun créer nañu loo xam ni mat na au moins 5000 emplois direct ak indirect. est-ce que les joytu ngeen ko ci ci kilifa yi muy euh, envoyer ay courrier président wala ministère wala. joytu gi ñi joytu yàgg na moment ba nga xam ni euh, bi ñu ko yëkëté booba sax euh, premier ministre John mo fi nekkoon joytu nan ko fa ñu dem après Daouda Diallo.

en passant dama lay wax ni bu ñu xoolee statistique port li ñu ci société 300 et quelques lu bon 150 cent donc ça va c'est des pertes d'emploi comme c'est pas possible yii nous bu continuer ça dit c'est la mort euh, de de de ces entreprises là. Euh, est-ce que ça veut dire que la situation est gën empirer mais problème dans saxoon na fi dafa gën empirer ak le problème jëm problème amoon na fi mais il dafa dafa tar. tar moy li mala wax xam nga bo defé sa business plan ni tay ji eh, bo jëndé investir say camion da ngay bëgg lu bon bon nga def ñaari rotation mëna livrer ñaari conteneur par jour bo démé ba benn bi tëla ça veut dire que ni par rapport ak la nga mébatoon yow mëna to toj to jégg ci ci nang ci loolu la ñu toll. ngeen fas yéene banque seen loxo lan hmm? lay jural port bi ak économie nationale. di banque banque sunu loxo ëlëk bi du sax lu nu bëggoon ca bun sañoon it duñ ci egg ndax lutax

entreprise industrie nga xamni sen seen ñi ngi ci ay euh, industrie nga xamni ni tey ji seen matière première war ñew ñëw egsiwul wala bu egsi na mënul egsi ci sen entreprise duñu liggéey rupture de stock day am xam nga jamono ji ni mu méttee gisatoo ci entreprise yi ñu ñuy liggéey neneen du dul flux tendu dootuñu stocké dañuy indi rek loo xam ne buy jeex rek beneen ñëw ñooñu bu ñu jotul gàllankoor la kooku mooy d'abord euh, point économique bi ci jëkk point bi moy port bi bu nu génnewul conteneurs yi ci biir DP da fay fess du am espace gal yi ñew DP World du len meuna traiter traité il faut que mu téye len en rade ba mu ba mu am vide ndax bu amul vide du meuna am fu mu teg yi kooku impact bi ci armateur yi ak borom gal yi dem na ci porte conteneur yi tol nonu entre 10000

amna ñaar au niveau économie tay ji commerçants yi nga xam indi nañu sen marchandise importé ko ñew di wara fay seen i fournisseur ak seen traite seen marchandise nekk mënul génn day indi yenen faux frais yi ni wax ay magasinage ak i mu mu nek lu 10 lo xam ñom dañ koy tek ci askan bi ndax commerçant du perte benen bi entreprise industrie yi nga xamni sen seen ñi ngi ci ay

bu nu génnewul conteneur yi ci biir DP dafay fees du am espace gaal yi ñëw DP du leen mën a traité il faut que mu téye leen en rade ba mu ba mu am vide ndax bu amul vide du mën am fu mu teg conteneur yi kooku impact bi ci armateur yi ak borom gaal yi dem na ci porte conteneur yu toll noonu entre dix mille ak dollars par jour de surestarie kon tey daanaka yéen seen situation campagne nga ko wax nga lu mu mën a jural économie tey. ban message ngeen lancé pour que war ñu mën a jug. message bi nga xam ni ñoom la ñuy lancé autorités ak ñi nga xam ni tey jii ci biir lañu nekk mooy ñu seet nu nu dajee balaa suba ñu xool euh, ay solution ndax ñun am nañu solution yu leen proposé bu njëkk bi au niveau ministère transport infrastructure mu dispenser provisoirement du depuis wët pèse essieu yooyu muy def parce que équipé wunu port autonome bi nga xam ne tey mi ngi def ay travaux ci ci ci ci euh, voirie bi ci biir port bi mu indi xat-xat googu mu accélérer travaux yi moom ak efface Eiffage moo koy def bu yooyu paree ba nga xam ni nañu fluidité ñu soog a nang wax naka la ñuy ci affaire u pèse essieu boobu tey jii nag facturation bi ñu euh, port suspendre l'application. dindi ko ndax mëno 50 000 francs camion par an di fay 4 800 euh, par camion par an